Yeah. الحاجي مالك لا وخ دادك سنو بروم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين سي الحاجي مالك نور من النور قد جاءكم ديكلنا لين من الله مبايكو تي يالا كان نور محمد وكتاب القران مبين بوي تيكل دغ اك سيد حاجي مالك ني اه ندغم لولو امنا نكون نور من النور رسول الله لير نكو باييكو تي لير ني نما ام سيد حاجي مالك موني لير غوغا نك من مودو توب ناكو جامونا يالا جوروم نيات تيمري ات جزاك الله خيرا leer gogu xamna ni pek na leeru yàlla yëpp ñu ne bindal muni nurun ahata bihi al-anwar hajibatan anil haqiqati kull khalqi allah nurul mubin mubinun ata nurul mubin li ir saadi ibadi alayhi ñu ne Seydul Malik muni leer gogo sabal na suñu borom ci fukki kiiraay ak benn Seydou Hadji Malick xam nga kiiraay ya mu ne karamatu manzilatu hidayatu nubuwatu rifatu taatul mawla shafaa joodin xekam mu ne génnal kiiraay ma wax la géej xam naa géej yi mu sangu ñu ne Seydou Xaaji Maalik yan géej la sangu mu ne fukki géej la wa qaatiun abxuran yaan biha sabaa jamia min nadri walxubbi walruxami suma ikraamin mandilatun sabaa jodin hikam mu génn géej ya mu ne xam naa tànku baayam Seydou Xaaji Maalik luy tànku baayam mu ne Abdullahi ko jur kooka xam Cheyba ko jur Hachim عبد المناف قصي كلاب مرتا كعب لوي غالب فهري مالك ندر كنانة قضيمة مدركة إلياس الحاج ما تخاو مودو دانغا غاك موني دير دما لين جانغال لوني جانغال مودو موني دما لين بغا جانغال لي ngeen defé makka ni mustafa bim koy def mi ngi ci ndig mamam ilyas so duggé مدينه kaari jugé madina di ñew makka لبيك labbayk la sharika laka labbayk innal hamda di ko di la ko jàngal Seydi Hadji Malick ni wayu wayu labbi daan na labbay kaw fii sulbi Iliyaasin ci digg maamam bu ni wax Iliyaas ne Iliyaas Mudar Nizar Maad Adnaan Maodo lu tax nga yem ci Adnaan mu ni yonent bi nee na man yonent bi nee na man jaawazal Adnaan fii juduuri faqat kazzaba كوماي تاغ با روم عدنان واختو دك من قد جاء من علم ميغي جوغي تي كيغا خام موي بوروم تود خامبا ني ني الحاج مالك مولي مامي غوري مالا تود خامنا سين ياي مودو من ما واخ ياي مولا جابال فهن فاطمه فاطمه جور عبد الله مجور رسول الله فهن فاطمه boo demee kër ga teqaleel damaa yàkkamti fa hunna fatimatun salma wa atika xobee fatima la hunna siyami waxsiyatu bintu seybaani maawiya bil waawi dégg nga Maodo ma ri ya am na ma wi ya am na mu ni bil waawi salma ليلى عد لم تلم منهن جندلة لا تنسى عاتكة وبرة بنت سعد ذوي الكريم رباب تلا سودة تلا معانة تلا ما تدعي لفيف المفروق لا صدق لي ولا يلي لي ساوى يسوي اسوي سيدو حاج مالك مري توبنا رسول الله ñu ko si yow rek lañuy dégg yow rek lañuy déglu mu ne maamam nisaroon na ni yàlla boo ma mayee fukki doom ma rey kenn ki jaamoo la ko Maodo ndax mus na koo may mu ne may nañ ko ndax rey na doom ji mu ne déglul ma nettali la dafa wax loolu ñu may ko fukki doom mu tëdd saa yu tëddee guddi ñu naan ko mottali sa kóllëre ak yàlla mu dajale doom yi yóbbu leen nax wa i safo il safa ak marwa سيدو حاجي مالك نمو ديف موني بانتالي وان لين گيناو سان بانتي بي دمو دال سي والد الكريم عبد الله مي ورا جور رسول الله بانتي دال مودو نم ديف با ريكو موني نم دي لي خيبر فيها كاهنه يا شيبه ني ديم خيبر فيك با بن سوخنا سو موني ku rey ci yéen bakkan lan ngeen koy jote ñu ne ko fukki gëléem mu ni dem leen teg xale bi teg fukki gëléem soo leen sànne bant bi mu dal ci gëléem yi rey leen gëléem yi soo leen sànne jëlee bant bi sànni mu dal ci abdullahi dolli leen fukki gëléem innal qidaau benn rek منك واو كيسح حاجي مالك ان خرجت بدلي إن خرجت بدل القضاء بنت بي على محبوبكم تكي أم لير الصب بي فزيدو زيدو نين دل دل عشرة أجمال فكي قلم بدل ثم زيدو وزيدو دون ما سأمي الحاج مالك مني بعبد الله متي خمنا بابا نيات أدلام مودو من نغنيو كو مني 18 ans baayam takkale na ko soxla moo njëkk a ji baayam bi muy dem xam naa ni mu demee wa abdul muttalibin min ma abdi marra ila fatahdi zuhra zatil maddi wal karami bi ñuy ànd ñoom ñaar di dem xam naa nu délégation bi mel marra alam raatin ba yaa ngi dégg marra ak marra xam nga marra bu jalgatee ila bokkulan marra bu jalgatee ala fa xaraja ala qawmihi bokkulan xaraja ila xaraja ala xaraja an xaraja min bokkuñu mu ni ko abdul muttalib wa abdul muttalibin marra ila fatati zora moy mu jëm marra moy mu romb marra alifu tasniya ca nek marra ñaar lay doon wa abdul muttalib marra ben la marra alifu tasniya la marra alam ratin tudxa bi fatimatin tabixil mamala ilayha wa hiya lam turami likay sayraha sadban lidurati aminatun naqiyan al sairi turami rasulullah bayam andak mamam ñu ne alaaji malik Abdoulaye bi muy takk Amina ñaata at la mu 18 ans fan la ko tekkee mu ne quartier bi sax xam naa ko quartier bi mën nga ma wax quartier bi mu ne ma jour takk ga sax la ci xew di benen action bu fa am lu kenn dul def ma wax la ko ca nettali la ko ndax xamna gay jànguñu ko lu xew bis ba Seydi Hadji Malick ni fi seex bi yow ma sinal muxtaar sëy ba ñu ngi ko takkee ci cheikh bu abdul muttalib keroog bi abdul muttalib ñëwee di ñaanal abdullahi doom do euh, yaay amina moom abdul muttalib sax may nañ ko fa soxna sew sew baa ngo ñu ne Maodo ban xale lañ ko fa may mu ne hënnatu lañ ko fa may Maodo lutax ñu may koko ko mu ni moom Abdul Muttalib dañ ko waxon ni ko di nga jur ko am tan ci sigré bour lay doon fofu lay jógee mu ñëw ci kër ga di ñaan Amina tourner ben xale rom mu ni kii num tuddu ñu ni ko hënnatu mu ni ndax bo len ma mayee Abd Amina do len ma may ki ma def ko soxla alaji Malik ni waw wa qila zawajaha wahbun wa qila wuhaybun ammuha wa murabbiha bi hijrihim alaji Malik mu ni guddi gi ñëmb rasulillah ko كن نكو أمبو من دعنا غاينا ليلة العروبة تحل دول في رجبين مونني ديدت أمبو نكو قدي الجمعة على جي مالك مني رسول الله نكو أمبو يوم السنة بسوا التين قتيب دك دك حمل لن أمي المختار رسول الله سيد عادي مالك مني بينكو أمي خمنا نياته موالنكو أمبو مودا نياته موال مني جبل هدا ثم بها bëwan xamlun bi xayril wara Seydi Hadji Malick ne ñii dañ naan six ñii ni cinq ñii ni sept ñii ni huit ñii ni neuf waaye ñii ni dix man moo Maodo nag ci neuf yi laa d'accord Maodo mu ni waaw ndax li ma ko wax mooy wa jaa Adamu tabsiran siisul laha première mois ba Adama moo ziyaar si ni amina pëkk ba mu yeew mu ne ko ki nga ëmb mooy suñ patron ñu ëmb ko juróom-ñeenti weer Moustapha di judd alaaji Malick mu ni judduwul guddi judduwul bëccëg buudi bil layli wax tamma bil fajiri mat gee départ ci guddi gi jeex ci fajar gi ñu seddoo ko ñoom ñaar maa alaaji Malick mu ni bi muy judd xam naa néeg bi mu juddoo ban néeg la mu ni néegu safiya yaay Abdourahman ibnu Awf bi yaayam di doxantu li ko dal ci diggante bi mu ne xam naa ko guddi googa lan la mu ne raa janaaxa tayri nafa mahal min jusmi alaaji Maalik mu ni Jibril la jàkkaar lool mu jàpp Amina ni ya seet ma laafiya Amina ne ma sedd daw dugg néegu safi ya tëdd tëdd njaaxaan nii laa tëddee dégg baat bu naan ma Amina jaaxaanal bokkul ak liiri ni ni juddoo Amina ne ma jaaxaan ñu césarienne ma xotti sama jumbax génne rasulullah yóbbu Kawsara dëgglu tam jublu ko penk alaaji Maalik bi mu dellu see position bi Moustapha toogee xam naa ko bimu yonne baram yi xamna ban baram lu yónni alaaji malik muni ni mislal musabbihi kenn ku nek ci julli ni la def ni sànni baram ba nan Seydi bëgg rek ngeen baal ma ma rëppatal li may rëppatal su ma daanelee ngeen may wax ay araab ma koy wax ci wolof xanaa boobu neex na ok dama ni yow mii ma ngay jund lu ma jund al sababata baaraamu xulookaay ba mooy bii xam nga xale yu jigéen dañoo mën a xulo buñ nee xulo ba ni la dama ni moo dani yuumi ma ngay junj assabaabata baaraamu xulookaay ba miqbaadan ay xaala kawnihi miqbaadan ala mbir mu muy ñëpp asaabiu ñeenti baaraam ya loolu nag mislal musabbixi mi ngi koy def képp ku nekk ci julli yarnu ma ngay xool al ulwa wàllu kaw zahima mi muy jàngal bërëm yi téy alaaji maari mu ne mu am deux mois raam cheikhu njool màkk dafa judd am 15 jours la ko yaayam nàmpal amatul meew amina di wër ko nàmpal rasulillahi programme bi yàlla programme Seydou Hadji Malick ne ku ñëw ci mbooloo mi soo ñëwee yow amina doo leen juboo soo dikkee vingt cinq mille ngay wax amina fay dix mille ñu koy def ba xalimatu saadiya rek des mu ñëw ni Amina lu tax xale bi joxe woo ko mu ne ko li gars yi fayeeku daa seer bàyyi ma faatu na man may débrouiller te maama mag la mu ne ko looy fay mu ne ko 10 mill mu ne ko fayal 15 000 mu ne ko yoruma 15 000 10 000 la yor Amina ni ko du ma nàmpale 10 000 ni gees wuuti di dox dox ñetti paa taxaw xelam yedd ko ni mos naa tëdd guddi ñu naq ko ci géej gu saf sàpp ak meew saf sàpp ak sukkar naan ko xalima ah, ah, naanal ndax yaay mujjee nàmpal xëyru bëri yëtti xalima nee ma ni baadu xale bi mooy xëyru bari yëtti ni gees mu sa yëkkati bopp ba xalima ne ma jël rasul teg sama kaw sama yenaat yi daa wàccoon muy wenni waaye bi ma ko ci tegee daa fees meew ba mënatuma ko àttan sama mbaam a gën a gaaw gool ca mbaam mi gën ci ay yeex bi sama borom kër takkee ma war ci kaw mbaam mi mbaam mi ñu romboon yëpp sama mbaam mi da leen a romb waaye garab gu ma romb yaa nga naan ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu annaka rasulullah sëñ Babacar Si ne kam dawxatin xalaat maasat li daawatihi doomi alaaji Malik jooju alaaji Malik nag war nañ koy bàyyi tey laaj ay doomam cheikh loolu war nay ama ah. xam nga lu tax ay doomam rek kenn du ñoom ñi bi seen mam génne aduna mam rawhal seigne sëñ Babacar dafa ñew fekk laaj leen ñu ne ko ma nga ci kanamu faas ñu jëlé faas indi pal défar bay denc seigne seigne Babacar si ni moo alaaji Mansour dañuy dugg ñu denc mam rawaxaan ba génn di ñibbi Tiwaawan maam jekki jekki jékki sëñ imam Musa ñang ne ko gor gi loy retane mam rawaxaan génn aduna ak li mu doy ci Seydi Hadji Malick mu ne ko mag ñee baax bi may dugg ci bàmmeel bi rawxaan mi ngi naan baaba Babacar jéggal ma poussière bi dal sa kaw ku ko weddi kay jàngu alquran wala taxsabanna alladina qutilu fi sabilillahi bal axyaahu néew bi alxaaji Mansour bu Seydu Xaaji Malick dafa génn àdduna ñu koy sang am góor gu nekk ci peggu jàkka ji jékki-jékki yuux alaaji du génn ne ko mbayka bàyyi leen seen jooy yi wala ma def li alaaji Mansour def góor gi mbayka ne tekk ba jaam mu ne ko jooyu ma alaaji Mansour ngir naqar waaye damay jooy alaaji Mansour ngir mbégte mu ne ko alaaji Mansour génn àdduna ngay ngay bég mu ne ko waaw ndax alaaji Mansour léegi la ma romb naan ma mbayka maa ngi dem bàyyi leen seen àdduna bu naqari te boobu ña ngi koy defar ma wax la leneen góor gi ama Baat da ca Mbuur Seydi Hadji Malick daa génn àdduna mu ne duma jaale ji dégg naa doomam ji am 37 ans mooy xalifaam nee nañ bu la fardul jaami la te moo fi raw naa ci xam dara bind lettre dikk ba ci géeju mbuur gi ni kër si jot lettre góor gi Abdou Karim nee na ma jën bi ko wan na daf ko wan na daw ba ñaŋal am ku soxna su doon jóge Tiwaawan di jënd jën ñu koy wax soxna na bu Juuf ñëw di jënd jën ñu jaay ko jën bi mu ñëw buntu kër kurdu yi gay di jaay jën bi sëñ baaba këram ci néegam moo góor gi kur gi de waaw buntu kër aali taxa waaw buntu kër aali taxa sëñ baaba kër ci néegam mu woo góor gi kurdu yi gay ba mu ñëw mu ne ko demal buntu kër ali taxa am na jigéen bu fay jaay jën mi nga sol voile bu xonq neen soxna as sukar na jënd jën bi ci lu mu ko jaayee te am naa ci yóbbante ma ngi ñew de bal leen ma cheikhou de ñu indi jën bi soxnaa sukkan butti ko fekk ci lettre bi mu ne ana Abdou Karim ndjay mu ne ko ma ngi ni mu ne ko jallal bur nga wax Amadou wad jotna sama yobanti góor gi Abdou Karim neen dama ko fekk mu jaaxaan ci pilian bi ma ne ko seigne Babacar si nuyu na mu ma ban ma ko bu Seydou Hadji Malick mu ne ñoo ketto lum wax ma ko neena na yobantem mu ne nañ ko wol sefeuram am booba deux la am neena ñu wol ko chauffeur bi amoon na kër gasab amoon na kër lii dama koy nettali Maroc imam Salih Ndiir mooy imaamu Yoof ni ma bi muy am maa ngi toog ci sal bi Gorgui Amadou Wade jël otoom chauffeur bi ñëw ba tolloot Sinja nar a jàdd Popenguine mu ne nag ca mbagg ma ni ko ma maqasadi bi Popenguine kalla wala gasabin walakin tiwaawoonu xaqan maqsadul ilmi wal adab jëw ma pëpa ngin jëw ma gasam fa xam-xam ak teggin nekk muy doomi Seydi Hadji Malick Seex Seydi Aboubacar boobu moo ni ñaata yoon la garabu penc ni bu déet kam dawxatin xalaat maasat li daawatihi ñaata yoon la yonent bi taxaw ne garab gi damaa bëgg nga fekk si ma mu ne buddeet naan ashhadu an laa ilaha illa wa ashhadu annaka rasulullah ba ak si kanam yoolu màkk Seydi Hadji Malick ne xalima continué dem këram raxas ay weenam pour nampal lay ñëw fekk gàtt yi def ben rang bi ñu agsee ci kanamu rasulillahi gàtt bu nek bo agsee da ngay fon bop rasulillahi del akrim bi man sajadatil asjar li ajlihi cheikh wa xaadatil anhar shakka ilayhi jamalul mawlaahu من فتن منه لما يلقاه وشهد wa له رساله والزبي والذيب بلا مجادلة وقبلت الرأس النبي شاتو كما به قد أنبه الروات عين قطادة بدون ما صفا ردت كما كانت بلمس المصطفى نجول مكة بم أمي دوم على رام حبابي شهريني mu am trois mois mois ni ñoo mu am 4 mois commencé jàng dox ci mairie wa fi da wa fi daali xada moom si kal juduraan wa qudratul masni fil ha 5 mois la a commencé dox di dëgëj 6 mois muy dox di daanu 7 mois mu dox comme aji farlu fi xaata kallam bi mu amee 8 mois la commencé wax wa fi tafasa atuhu bi mu amee 9 mois la wax ja leer wa fi yaa yërmi wa yuxyi absara jusami bi mu amee di mois loo xool mu lëndëm moom da koy xool mu gis min qabla amay ni jafran kaana kaana daa bëri de am na kaana maadi am na الأبدية الأزلية am na kaana bi ma anaa saara wa kaana min alkafirin ay wa saara min alkafirin waaw waaw moom abdul mutalib moom rasulillahi waaw min qable amayni jafran kaana da adabin lillahi darul adabi shabab il yutumi bi muy ñàkk yaayam bi muy ñàkk baayam boobu juddoogul deux mois lañ ko ëmb mu ñàkk baay abdullahi alaaji malik ne xam naa ñaata at la am ñàkk amina alaaji malik mu ni six six ans la am am na ama arbaatin aw sittatin halakat umu nabi bi abwaabi alaaji malik nee na ñeenti at at Amina mo ci gañu ndax alimatu saadiya biñu sonale mustafa ci juromi at ba ci la delloo rasulillah moy Jibril ba ma xaree dënnam ba ci lañ ko delloo rudda sayyiduna fi am khamsin mu delloo ko yaayam ja ñu tek ci benen at moy 6 ans Amina génn aduna am arbaatin aw shittatin halakat umun nabi bi abwa alaji Malik mu ñu indi ko xamna bi yaayam genn aduna kat moko bot indil ko mamam ñu ne alaji Malik mu ne wa tahmiluhu umma aymana li jaddihi al mahmud way ay ko indi jox ko maamam mu def fa ben at xamna febar bi ko dal febaru lan la muné wanent wanent bobu xamna num ko sonalé xamna kiko faj moo faj dem ci hudee ila rahibin tabbin yaqulu lahu di rawa dawauhu riquhu farji ila alami daño dem mun len ki moy faj bopam na dal tifli def ci loxoom ray ci beutami mu tifli def ci loxoom ray ci beutam mom mu sabaa mu wér alaaji may muné mu doli ci benen benen benen at mooy juut muy juróom ñetteelu at ci la maam ji génn àdduna ama samani wa faatu jeddin lahanamin wa xaatimin wa anu sarwaana dil karami alaaji malik mu ne topp naa ko bés bi ni génn màkka rasulillahi xam naa kañ lañ ko génne xam naa ban waxtu la alaaji malik mu ne xam naa dig digal bi la ci am aboubacar bi muy jooy xam naa lu tax mu jooy alaaji malik mu ne topp naa ko rasulillahi bi muy départ cheikh di dem ci yàlla xam naa ni mu demee ci yàlla xam naa ba néeg la génne xam naa ba muy départ nu mu déparé xam naa ko mu njëkk a waxal xam naa fi mu jaar xam naa doj bi mu yéeg xam naa fi mu jaar asra bihi llahu

وهير كذا حسن رسالة دودا دودا العبد لا تما مولانا أسرى بالله تشريفا بمكنته أترى فهد واني كذا أسد مولى الرزاق دودا دودا تمل أدلتنا أيا يا أسرى بالله بك الله تعرف المنتك ما مولانا أتارى أمر أمر آمين المحبة منك سأزد مولد العرف كان بودا حدودا نسمى أمينة ياي أمينة ياي أمينة ياي أمينة ياي أمينة ياي أمينة ياي Aminata ku bëgg yoon loxoy ca kaw. yaayu Mamadou la. Aminata ku bëgg yoon loxoy ca kaw. yaayu Mamadou la. Aminata ku sopp yoon loxoy ca kaw. yaayu Mamadou la. Aminata ku sopp yoon jógal taxaw. Aminata ku sopp yoon jógal taxaw. أمينة كسبيان جدل تخويا يا محمد أمينة كسبيان جدل تخويا يا محمد عبد الله يا محمد عبد المتنب مامي محمد من هاشم مامي محمد عبد مناف محمد بن خسي مامي محمد بن كلاب محمد مرتي مامي محمد من كعب مامي محمد بن لويمان خالد من فهرين مالك كنانة خسيمة مدركته كنانة خسيمة مدركته إلياس مدر بن ميزان بن ماد ويا دنا دنا دنا دنا ويا دنا لا مود أيوة قمد أيا دنا أدنا أدنا أيوة قمد ويا دنا لا مود يقاي أيوة قمد دي نخي أصحاب مدكل يا رب loxoy Mustafa bi ma dégg lu yaara maa ngi lay wayanto dégg naa nawtal nga yéefar xanda xat ku nay nu ba màkka Aba Jahil dafa daw ba fanaani caayaw ami jural nañu doom doom datul mel ni moom ba mukk Saydi Lawalin Saydi aduna ndax la Maodo yow. xëy ay waxamadu. waaye ana soppey Serigne Babacar Sy. ay waxamadu. waaye ana soppey Serigne Babacar Sy. ay waxamadu. waaye ana soppey Soora Jamil Majawaat. ay waxamadu. waaye ana soppey Serigne Babacar Sy. ay waxamadu. kon dala rabbun tabaraka aw rabbun tahadas أو رب تحلى وان ربي ba tey. kenn ko àddina naa dikkal. kaañu dem ñu sama gaalu te xëgg. ku ci duggul. waaye ma gaalu te xëgg. suñu maam Maodo fi yor gaalu dexe gi waaye maam Maodo fi yor gaalu dexe gi loxo ca kaw rabbun tabaraka aw rabbun aw rabbun taxalla wan rabbi كنت اندر مع الجنه باي باي امنا جاي تولي يوم القيامه فلن يتقني وقتا كن عبد ذليل فقير خاشع وجيل سجاد ان اسف يلا ويلا واليك ما دل يا دار يا مغفرتي هب لي مسامحتني يلاك ويلا يا يا سيدي الحاج مالك yoroon dul sa téere bi Maodo kurus gi ak sa gopp gi fii nga xare sa jàng bi cheikhun taqiyun laa yuzannu bi ribatin ala istiqamati bil ilahi al muani عن الشريعة والحقيقة إنه يولي المريد لخالص الأديان سامي المقام وغمدة العلماء بل تاج العلا وكما اقتل القمر جخائل لا تاج جيث لما سنقالي عيون الليل yàlla ñu yàlla defal sutura Cheikh Omar Demba Faye ne nim ma soppee noonu la la soppee yal na yàlla defal ñu sutura uh, nu mu tuddati taala boo kontaanee fii lay wàcc boo meree fii lay wàcc asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu samp mbay daagu kenn yënguwul samp mbay ba kenn tënku yanaan dawal bu tudd nga fi Ceerno Yaxya li soxnaam bi jur Ibrahima li maami taala mii la ndax ma nga dëkk mbaxaas Jóob ca Gànjool boo xoolee ñu baax ñi ci ndakaaru nganka daay yi sëñ bi ma de nganka daayira yi toppal seen cosaan rek oustaz Habib toppal cosaanam ba fa mu dëkk hmm? Cheikh Oumar toppal fa mu dëkk toppal cosaanam ba fa mu dëkk nga xam ni alaaji rawaanay maamam keroog bi maam xalifa di wax ni sama baay alaaji rawaan bi ñu koy dugal mi ngi naan ma kër si nanga ma baal tànk yi kër Diop mi jur Souleymane mi jur taala ma nga fa toog imagineel ñu liggéey ci tool yi ba yeggal si kër wuti maam alaaji rawaan ngom mi maami sëñ Moustapha sikkar si dëgmal wuti maam alaaji rawaan mu ni nii loxoom bu tedd ba ñëpp ni rett taxaw mu dem leen ca Babacar Diop male tey moo leen di ñaanal te lu mu ñaan yàlla nangu ko Babacar moo jur Souleymane mu jur taala yi kon taala war na baax taala war na doon na pas-pas taala war na doon bëgg tariixa bi taala war na doon bëgg maam alaaji rawaan ngom maami kii ñu bare dégg nañu ni maam alaaji rawaan ngom maami sëriñ mustafa tabax na jumaa ci kaw ndox sëkk ko fukki at bés dex ga fer mu teg ci juma du lu ñuy léeb ak léebaat jërëjëf sama doomi nijaay la nag mhm. loolu du lu ñuy léeb ak di léebaat de dafa sëkk dex gi ñaan ko tubaab bi ba mu may ko ko mu woo ay mbokkam ñu sëkk ko ba mu fer mu tabax ca jumaa ka manoon ca sëkk ba mooy Babacar Diop maami taala amoon na aw tur wuñ ko tuddee woon ca sëkk ba buñ koy bu ñu wetee ma wax ko ko yàlla nañu yàlla taas ci barke jëfam jooju noonu kon maam Babacar jóob ak maam Alaaji Rawaan bu seen ñaari sa toogee nii sëriñ Codé toog ci diggante bi seeni njaboot toog nii ak seeni xarit ci ndigalal xalifa ba ak porte ba kon sëriñ Mouhamadou Moustapha délégation boobu la àndal ñëw fekk fi euh, rakkam magam wayjuram sax way juram sax taala woy juram sax nga ndax sa baay baay alaaji rawaan lay wax kon way juram nga fa tabaarakallaahu njaam ngaa ngi bëgg a neex waaye maa ngi jox sëriñ bi kàddu gi dama ko doon waxal rek délégation boobu nga xamante ni moom la àndal ñëw ci ndigalal sëriñ ba baay alaaji Ousmane ci ndigalal porte parole ba baay alaaji Bachir kon sëriñ Mouhamadul Moustapha كادونغاغوك بسبانغوك تالانغوك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الإمام حجي علي نسال يونغ لي نيو يونغ لي زياره di nuyu bokki mboolem ay ima yi nekk yarax yëpp ñoo ngi nuyu délégué de yi di nuyu meeru dëkk bi di nuyu waa daaira bi di si jiital xaaju taala oustaz Habib ñoo ngi lay nuyu ñoo Cheikh Omar ñoo ngi nuyu ak bokk yi nga bokkal tëgg yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu ngi nuyu bokk yarax yëpp góor ak jigéen ñu ngi nuyu soxna yu bax yi ñu jàkkaarlool di nuyu bokk yëpp te di leen ziar di leen indil nuyoo xalifa maam alxaaji Rawaan Ngom ba alxaaji Ousmane Ngom jaare ko ci porte-parole ba docteur Mouhamadul Bachir Ngom sunu way jur di sunu sëriñ di nuyu sunu wayjur khalif général de Tidiane seigne Babacar Sy Mansour di ñaan yàlla yàlla na leen fi yàlla yagal tamay leen wér bi jahi rasulillah sallallahu alayhi wasallam mu mel nak ni guddina togay bi yagna na fi wax lépp jub rafetna bari na it njariñ lool yal nañ yàlla may dégg ak topp xaj biran si say ñoo ngi lay nuyu di la ziar bu baax di fedd li cofeel yu bari sunu diggante maa ngi nuyu sunu kilifa sunu baay alxaaji abu diagne di njaboot ci maam alxaaji rawxaan ñoo ngi koy nuyu di ko ziyaare li yelloon ci ñun mooy ñu dem balaa ñuy toog fii ñu dem ca këram ziar ko talal ko loxo mu ñaanal ñu ndax bët bi ñuy xoolee Baye El Hadj rek lañ koy xoolee kon ñoo ngi koy nuyu Baye Abou Diagne di nuyu njabootam ñoo ngi nuyu it sunu bàjjan Mareetu Ñang suñ ko nuyoo nuyu nuyu mboolem magi jigéenu yaraax yépp mu am nag lu ñu sëriñ bi santoon ni bu nu dikkee lu mu gàtt gàtt gàtt nañ ko fàttalante ci sunu biir guddee na mo lol bik amna am paré won sax pour waxtané ko waaye docteur Mouhamadul Bachir momo wo ci bu guddi lol ni ma bo démé boy waxtan na nga waxtan ci nangam ak nangam ak nangam moy lan bo démé na nga wax ci jam ak lepp luy indi jam lol la ma wax ni boobu démé lu mu gatt gatt na nga ci wax waxal ci na nga wax ci jam ak lepp luy indi jam ndax pench ma ngi yàqu pench mi nak moy rew mi moy senegal dañu koy yàq mooy waa pénc mi kon te lenn la la koy yàq mi ngi bàyyi ko ci wax wax nag ca la pénc di jóge yàqoo su ko defee nag ñu defaraat kàddu yi ñu jubbantiwaat lemin yi jubbantiwaat wax yi seet la gën a rafet ñu di ko wax ndax yàlla subhaanahu wa taala loolu la santaani yàlla kat dafa ni boo xaw la zuur moytundiku leen bépp waxi neen bépp waxi caaxaan wax yooyu nag mi ngi tas pénc mi subhaanahu wa taala nag nee na ma ngay tagg sax di wax wallazina yashhaduna zur ñi nga xamee ni duñu fekke sax fu ñuy waxi caaxaan duñu fekke fu ñuy wax waxi neen kon su ko defee sëriñ bi waxoon ne ni ñu waxi aaya bi sunu borom bi tabaraka wa taala yàlla wax ni wallazina yuzuna almuminina wal walmuminaati bi gayri maktasabu faqad ixtamalu buhtaan wa ithman mubina ñi nga xamee ni ñoo ngay lor ay gor yu gore ay gor yu gore ay jullit ñu gëm yàlla ay nit ñoo xamee ni ay kilifa lañu ay ñoo xamee ni li leen yitteel mooy jaamu yàlla nekk ci seen jaamu yàlla di sàmm seen ngor amuñu si yittey kenn xanaa bu ñuy wax lu baax la ñuy wax am ñu nekk ci wet ga di leen wax lu ñaaw di leen ko sànni loola kat yàlla subhaanahu wa taala bëgg ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam bëgg ko di seet góor yu góor ya góor yu jigéen ya seet la ñuy tilimale seen der yàlla nee na nañu moytundi ko loolu nee na loolu yi day nañ ko moytundi képp koo xamee ni yaa ngi jëfe loolu di wax wax joo xamee ni wax ju ñaaw la jëme ko ci nit jëme ko ci góor na la wér ni yaa ngi am bàkkaar yoo xamee ni bàkkaar yu rëy la sa digganteeg sa borom bi tabaraka wa taala mbokk yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ni doom yow nit ki fexeel ba na nga téye sa lamiñ na nga téye sa lamiñ bi si desit na nga taqoo sa kër na nga téye sa lamiñ ci lépp lépp loo xamee ni boo ko waxee pénc mi jaxasoo yàqu noppil nga la bu ko wax su fekkee ni boo génnee dem ca pénc pénc ma jaxasoo toogal sa kër ndax lu yàqu buy pénc mi yàqoo ñun ñëpp ñu yàqute mooy réew mi nee na nag war na ci képp kuy muskallaf war na ci képp kuy muskallaf nga sàmmonteeg sa lëmin ci mboolee mi wax joo xamee ni wax juy feeñ la boo ko waxee ñépp danañ ko dégg jaarle ko ci réseaux sociaux yi ci internet bi jaarale ko ci facebook bi ci whatsapp yi wax joo xamee ni boo ko waxee àdduna tukki loolu nañ ko moytu léeg nga dégg ko wax wax bu ñaaw jëme ko ci kilifa kenn koo ko jóg tontu ko wax ju ñaaw wax yooyu lañu bëgg mu dakk ci penc mi ñun njaboot gi nañ ko moytu di ko sunu senegaal gi loolu xaju fi sunu Sénégal gi li fi xaj mooy jàmm seet la gën a rafet ñu di ko wax seet la gën a baax ñu di ko wax rawatina ñun ndaw ñi ñu moytundiku kilifa yi nii wax wax ju ñaaw léeg-léeg nga gis ku xale bu ndaw bind ci net bi di di xas kilifa gu mag ci kilifa diine wala muy wax ju ñaaw jëme ko ci sëriñ bu mag loolu baaxul nañ ko moytundiku wala fekk soxna su baax su gore su yiw nga bind ci net bi yàq deram wax ci moom lu ñaaw waxtu yooyu nag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na yooyu baaxul nañu koy moytandiku mbokk yi réew mi lañu am sunu mag ñu baax ñi lañu am kilifa diini yiit lañu am li jag ci réew mi ñoo ko jagal li fi baax ñoo ko baaxal kon su ko defee kenn ku nekk ci ñun na nga seet la mu la gën a baax nga di ko wax nañuy jéggalante nañuy muñalante sunu yëkkatee wax ju ñaaw wax la téyal seetal na mu gën a rafete ki la wax wax ju ñaaw ju nga delloo ko ko su fekkee ni dañu jël lu ñaaw xëpp ko jëf la jëf ju ñaaw téyal nga bàyyi ba bis ñëw nga seet teraanga ju rëy nga fekk ki la defoon jëf ju ñaaw jooju nga nekk am lii maa la ko terale bu nu dundee noonu rek réew mi dana jag penc mi dana jag wala tastawi alxasanatu wala sayiatu idfa billati ahsan fa ida alladi baynaka wa baynahu adawatun ka annahu waliyun xamim loolu la yàlla wax bu nu la waxee lu ñaaw seetal la gën a rafet nga wax ko suñ la defee lu ñaaw seetal la gën a rafet nga jëfe ko kii wax wax ju ñaaw jooju ak kii jëf-jëf ju ñaaw jooju soo yàggee di ko defal teraanga ci jëf di ko defal teraanga ci wax ju rafet dana mujj wëlbatiku nekk sa soppe dana mujj wëlbatiku nekk sa xarit jullit noonu lay dundi ak mbokkum jullitam yonent bi sallallahu alayhi wa wax na ca xutba bu mu doon def ca mun na ca xajjatul bidaa mu ne ee eh, yéen jullit ñi na leen xam ne day seen yaram yaram seen seen deret yi xaraam na ci yéen inna dimaakum wa amwaalakum wa araadakum xaraamun aleykum yonent bi sallallahu alayhi wa ni bu leen tuurante dérit tuur dérit xaraam na ci yéen ngeen di reyante seen biir bu leen di waxante lu ñaaw bu leen di waxante lu ñaaw waxante lu ñaaw ci seen biir xaraan na bu leen di reyante bu leen di jëlante seen alal agression yi ñuy def baaxul araam na léegi nag fi muy amee mooy nga gis koo liggéeyloo ba mu liggéey ba liggéeyam jeex nga waroon ko fay la nga ko waroon fay doo ko fay wala balaa nga koy jox mu sonn lool ci bala nga koy jot bala muy jot te yim sallallahu alayhi wa de nee na ki ngay liggéeyloo day bu ñaqee balaay ñaqawee fend rek fexeel ba la nga waxanteeg woon moom nga jox ko ko fay ko ko yooyu yépp nag day indi ay jafe-jafe ci penc mi day indi yàqu-yàqu ci penc mi loolu nag bokkoon na ci li sëriñ bi waxoon ni bu nu dikkee fii lu mu néew néew néew ñu dénk ko jaamu yàlla yi yent bi sallallahu alayhi doon na dénkaane ci jullit ñépp jaarale ko saxaaba yi mu ne ndax duma leen wax bàkkaar yi nga xamee ni moo gën a màgg ci bàkkaar yi ñu ne ko ah kay rasulullah sallallahu wax ñu ko de mu ne xanaa bokkaale yàlla réew mi nag bokkaale lañ koy bëgg a toj bokkaale mi ngi bëgg a toj réew mi mën naa ne sax toj na jaxasoo la fi def nekk nii nañu bàyyi bokkaale bi nañu bàyyi yàlla li mu moom yàlla kenn du moom mooy yàlla kenn du yàlla yàlla rekk ay yàlla yàlla subhaanahu wa taala yemul ak kenn te kenn du yem ak moom nitu yàlla lu mu am cër cër cër cër jaamu yàlla la moo tax maam alxaaji malik si radiallahu taala anhu yàlla nañ ko yàlla fayal ak li muy am cër cër cër cër ci yàlla waaye dafa taxaw sukk raam ci kanamu borom bi ni abdun zalilun faxiirun xaashiun wajilun suu jazain aasifun yallaahu yallaahu maam alxaaji malik si radiallahu taala ni man yàlla sa jaam la bu wàccee boppam di toroxlu sukkoraam jaaxle lool sama jaaxle gii nag du ma ko joyal jëme ci kenn ci ku dul yow rek subhaanahu wa taala nañu bàyyeeg yàlla li mu moom ni sëriñ bi sëriñ la nit la nitu yàlla ki yàlla may na ko nit la waaye yàlla mooy yàlla nañu bàyyeeg yàlla li mu moom yàlla kenn du ko booleeg dara sëriñ bi may ma sëriñ bi amul lum lay may sëriñ bi bu duggee dana ko yóbbu àjjana du dëgg wóorul sëriñ bi waxu la fu mu nekk ëllëg lan lay am ci kanamu boromam nañu bàyyi wax yu sew yooyu yàlla bëgg ko yàlla moo ko moom yàlla moo xam jaamam bi fan lay mujjeek moom ëllëg bu bis boobaa sayidna aïcha radiallahu taala anha nee na dafa toog ak yonent bi salallahu alayhi wa sallam bi di ko wax ni que di ko nettali yenn ci xew ëllëg yowmal mu ne ko sallallahu alayhi wa sallam ni ko waa Aïcha ba xam nga ni bu ëllëgee yawmal qiyaam bu nu dekkee ci kanamu yàlla ni ñu juddoo woon noonu lañuy ñuy dekke waate Aïcha dar loxo bi ci gémmiñ gi nga ni mu ni ko waaw waaw góor du sol yére jigéen du sol yére Aïcha ni ko kon foofu dana jaxasoo de mu ni kenn du gis sa borom nag ñooy jàkkaarloo de waaye góor du xam ni jigéen mu seen solul yére ku jigéen képp du xam ni ku góor kii solul yére mu ne kan lu tax mu ne que li kulli imri in yawma isin sha'nun yuqnihi bu boobaa kenn ku nekk am nga sa ëmb bu la doy sëkk su boobaa nga gis doom jàkkaarloog baay baay ni pëccët daw yaay jàkkaarloog doom doom ni pëccët daw jëkkër jàkkaarloog doom jëkk jàkkaarloog soxna si ni daw jëkkër ja daw su bis boobaa kenn du tal kenn fekkoon nañu bàyyi wax yi caaxaan yi yàlla subhaanahu wa taala mooy buur yàlla mooy kenn yàlla moo am sañ-sañ nit ñi si des ñëpp ay jaamu yàlla lañu sëriñ bi dafa jaamu yàlla jaamu yàlla bi dafa jaamu yàlla ba am cër ci boroom bi tabaraka wa yàlla cëral ko waaye nag jaamu yàlla la am na loo xam ne du cëru kenn cëru sunu borom bi tabaraka wa taala nañu bàyyeeg yàlla li mu moom te ormal nitu yàlla yi jox leen seen cër su boobaa rek li ñu bëgg sunu borom yàlla mën nañ ko defal yonent bi sallallahu alayhi ci loolu mu doon dëkk saxaaba yi mun leen ak lan ak aqi wayjur nañu moytundiku di tàngal sunu xol yi wayjur yi nañoo fexe fexe ba sunu wayjur yi sunu xol di sedd ci ñoom góor góorul ba bu la yàlla joxee teraanga balaa ngay jox kenn fexeel ba jox sa waajur sa waajur xolam sedd ci yow boo ko joxee ba xolam sedd keneen ku ko jox baax na nañu fonk waajur am yar ci ñoom am teggin ci ñoom sàmm leen suturaal leen ormaal leen nangul leen déggal leen su ko defee lépp loo xamee ni yaa ngi koy yëngatu di liggéey yàlla na ci defal barke su dee jàngale yàlla na ci defal barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fekkoon na booba mi ngi jël concam bi teg ko ci suuf waaye mu jóg taxaw mu jóg toog rek naan ak li ma leen di dénk nag bokk na ki day ala lu qawlu di ko wax rek di ko wax rek xanaa wax joo xamee ni wéru la wax joo xamee ni wóorul wax joo xamee ni rafetul ah na ngeen ko moytu de ba xam ngeen ni am na bàkkaar boo xamee ni balaa la ko yàlla jéggal yàkki la ko séqal kooko jéggal la ko waxtu woo xamee ni jël naa lu ñaaw wax loo xamee ni amul tekk ci taala Diop mii toog ci bërëb wax ci moom loo xam ne dara amu ci waaye dara rafetu ci ña ma toogaloon gëm ko ba taala dégg ko su ëllëgee yomal qiyaam bàkkaar boobu balaa ma koy yàlla di jéggal faw ma ñëw ci taala ni ko taala baal ma baal ma kat bi sangam waxoon naa la nangam ak nangam te dara du ci dëgg nanga ma baal jéggal may bu la taala baalee nag su ma baalee nag ma doogee jéggalu sama borom bi tabaraka wa taala kon mbokk yi nañu seet wax yi gën a rafet tey defar ñu di ko wax rawatina ñi nga xamee ni ñooy njabootu mag ñi yaa xam yaa ngi bokk ci tariqa sayidna Cheikh Ahmad Tidiane Sharif radiallahu anhu wala nga bokk ci mam si Ahmad bam radiallahu anhu wala ngay xaadar wala ngay laayeen wala foo mën a bokk booy wax waxal lu rafet booy wax waxal lu baax lii moo lii la ñu bëgg ci réew mi sunu mag ñu baax ñi bin fi nekkee lu baax rek lañ daan waxante lu baax rek lañ daan jëflante kon ñun njaboot gi bu nu ñëw tey nag di ko yàq ndax bu ye duñu mënuñu ko yàq waaye ñun ñooy yàqu kon mbokk yi ñu góor góorlu ci wàll googu sëriñ bi waxoon nañu ko fàttali waaye guddi yonent bi sallallahu alayhi wasallam gi nga xam ni moom lañu ñu dëgmal yàlla nañ ci yàlla yóbbu ak jàmm ñu fekke ko te ko muy guddi mbégte di guddi xéewal di guddi goo xamee ni lépp loo xamee ni waaye sonne naka ci nga ànd ak yéene bu sell yàlla dana faj sa mbooleem aaju yépp maam alxaaji malik si radiallahu taala anhu nag ni mu wootee gàmm mooy lu dëppook sunna mooy lu dëppook yonte bi sallallahu alayhi wa sallam bëgg mooy lu dëppook lu yàlla bëgg ala azimu laylal wiladati xisbatan ida lam yakun naxwa alxaraami uduulu dama toog ci kër ba alxaaji rawxaan bay ci saalam ak yenn ci ay bokk mu nuy firil bayti boobu mu ni maam alxaaji Malick dafa jël loxoom rëdd aw rëdd ci ba rëdd bi daj mu taxaw ca digg géew ba tàllal loxoom ni kaay leen damay woote ñu ñëw ñu màggal yonent bi sallallaahu alayhi kuy ñëw nag booy indaale sa ëmb na nga fexe ba ëmb ba lu neexul yàlla bu ko ci def boo koo ko woowuma la nee na ëmb ba mooy lan mooy xol bi képp kuy ñëw di gàmmu si di ñëw tiwaawoon ak foo ko mënee gàmmoo sa xol na ci am yéene bu sell bul am yéene mooy yàlla bul am yéene waxi lu dul dëgg bul am yéene jël alalu jaamur waaye defe ko ci anam bu sell noonu la maam alxaaji malik si radiallahu taala an wootee woon gàmmu mu dëppoog sunna dëppoog li yàlla bëgg kon yàlla nañ yàlla dimbali ba ñu koy defee noonu bi jaahi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam di santaat bu baax imaam ñoo ngi lay ñaanal yàlla ñaan yi nga fi ñaan yàlla nañ ki yàlla boole di feddiliwaat sunu cofeel ci yow bu baax léeg-léeg ñu daje ci ay bërëb yal na yàlla yàggal la fi yal na yàlla may la wér julli goo julli yal na ko yàlla nangu bi jaahi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam euh, xaaji taala jërëjëf ñoo ngi lay ñaanal yàlla ak bokk yi nga àndal sëriñ bi kat nee waxoon na ma ni ma docteur Mouhamadul Bachir nee woon na ma soo dikkee na nga sant waa na nga gërëm waa yaraax na nga wax ne waa yaraax ñoom ñoo baax nee na yéen waa yaraax yéen a baax te la mu wax kat xalifa maam alxaaji moo ko wax nee na njabootam bii nekk ci seen biir imaam ngeen téye ko yaatal ko yëg na ko xam na ko nee na yéen yéen a baax ba nii ngeen jàppe taala ba mu man fi ba mu man ba def fi li rafet lii mu fi def kon yàlla miy fay yàlla neen yàlla fay waaye taala it jawar jëf bi nga dikkee ci dëkk bi fekkoon fi sunu nijaay sëriñ alxaaji ibrahima Diop mu teg la ci yoon nga nangu ommatu tënku ci kilifteef ba tey génnoo ca moo la may lii waaye ne la wér ni kat li ngay baax baax baax bokk yi nga àndal ñoo la gën a baax kon yal na yàlla fay la kon taala benn loo defoon ci lu baax na ko dolli lii la maxtar wax léegi doy na sëkk xam ni foo nekk rek yaa na jàppal ni yi maam alxaaji rawaan nga fa nekk ndax kenn mënula génne ci maam alxaaji rawaan radiallahu taala anhu kon mënul génnee ci maam alxaaji nag kenn mënu ko génnee ci Seydi Hadji Malick kon loo góorgóorlu war na nga ko dolli jàmbaar yi nga wax ñu jàpp ci daayira bi te wax nga ma lu bari lépp waxoon nga ma ko ñoom ñëpp yàlla neen yàlla fay yàlla na yàlla gën a dëgëral daayira bi marché bi yàlla na ci yàlla dolli def barke li ñuy jaay yàlla na jar te yàlla bu boor yi bare te kuy jënd yàlla na njëg la teew bu teewee yàlla na barkeel ku ci am lu mat génnee azaka yàlla na yàlla tàggat la ba ngay génnee azaka ku ci amagul yàlla na la yàlla jox lu bare ba ngay génnee azaka barki sayduna muhammadin sallallahu alayhi wa sallam cheikh omar ñoo lay ñaanal yàlla bu baax di fedd di la waat sunu cofeel ni ngay teg yéen sallallahu alayhi wa sallam yàlla na yàlla sàmm la wéral sa baat dolli sa sutura dolli sa xéewal xaaji biraan jërëjëf oustaz mouhamadul habib yàlla na yàlla yokk xam bi bokk yi ma àndaloon ñoo ngi leen di sant bu baax leen gërëm am na ci bare ñoo xamee ni huit heures pile dana leen fekk seen bureau waaye cofeel ak bëgg yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak bëgg Seydil Hadji Malick rek moo leen fi indi ndax ba ma leen nee kat jotaay bi jotaay Seydil Hadji Malick la la ñu jàppoon lépp dañ ko bàyyi daal di ñëw ñu ñaanal nag njaboot goo xamee ni dafay doog a dugg ci néegu sëy ñu ñaanal ko yàlla ci barke mbooloo bi imaam booy ñaan nga yéene wàlle ko ci yàlla barkeel sëyam yàlla jubal ko تيالا ماي كاتي تاكاندير بارك يونت بي صلى الله عليه وسلم تيالا لافيات تالا لي دال سيرن بي وخون ني نانكو وخ بارينا لون لي مبغون ني وخكو واي فتبارك الله ني غاتال رك يمالك فوفو امام يالنا يالا دولي سورا خيوال بارك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته علنا من الثبات عن كل عبد واحد على قتاي في ذنب أو أن تهملي جرائرنا تمحى بجاي محمد إذا سفع المحبوب بجاد المبارك من به ونوي التبرك باسمه ولا تعد في شيء طريقة رسمي فقد قسم المولى لا خير قسمي تراقى إلى سبع اتباق باسمه وقد أسرفت أملاكها وتجلتي الله كل أمر ربي من كرم يا خمنا غيد سجام يا جبل الجفيا يسر لنا كل أمر ربي من كرم يا خمنا غيد سجام يا جبل الجفيا يسر لنا كل أمر ربي من كرم يا خمنا غيد سجام يا جبل الجفيا ووالدي وأشياقي وشيعتنا أحبتي وذوي الإسلام يا باري أزكى صلاة وتسليم على قمري من نورك نيل ما نلنا من أنوار من نورك نيل ما نلنا من أنوار من نورك نيل ما نلنا من أنوار من نوره نيل ما نلنا من أنوار من نوره نيل ما نلنا من أنوار اللهم يا من أظهر الجميل وستر الخبيث ولم يقذ بالجريرة ولم يتك الستر ويا عظيم العفو ويا حسن التجاوز ويا واسع المغفرة ويا باسط اليدين بالرحمة ويا سميع كل نجوى ويا منتهى كل شكوى ويا كريم الصف ويا عظيم المن ويا مقر الحسرات ويا مبتدئ بالنعم قبل استيقاظها يا ربي ويا سيدي ويا مولاي ويا خير ربتي يا ربي ويا سيدي ويا مولاي ويا غاية ربتي يا ربي ويا سيدي ويا مولاي ويا خير ربتي أسألك ألا تسوي خلقتنا ببلاء الدنيا ولا بعذاب النار فمن علينا إله العرش خالقنا بصحبة الخلد في الدنيا وأخرى لذاك توسلنا إليك بكل ما أتت السماء موت لك بسعودها barke Makka ak Madina barke Fas ak Tiwaawan barke Seydil Haaji Maalik barke Cheikh Al Khalifa yàlla na ñëpp dem àjjana